ci département bu euh, Tivaouane mën nañoo wax ci euh, commune bu euh, Tivaouane Abdou Ndéné Sall directeur général maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di la gërëm ci invitation bi xat na trop mais quand même comme euh, borom rajo bi sama xarit la moo tax ma ñëw rek pour sagal leen sagal ko di ko encourager parce que la communication ça réduit les incertitudes donc ku yëngatu ci affaire communication rek ñun ñëpp ñuy def politique xam dañuy jaarale suñu kàddu ci yéen ngeen koy jox nit ñu bëri ni leen war a remercier di leen gërëm di leen encourager. liggéeyu président Mbagnick Diop moom moo jiite euh, MEDES mouvement des entreprises du Sénégal di defal euh, def forum du premier emploi liggéeyam rafetlu nga ko. rafetlu naa ko parce que képp ku ñëw rek di dimbali di ñu dimbali ci affaire emploi moom rek président ngay dimbali te man kuy dimbali président rek damay ànd yow. parce que ñun euh, président dañ ko wóolu teg ko ci réew mi mu teg ay programme képp ku ñuy dimbali ci ñu gën a réussir yooyu programme surtout affaire emploi ah, di liggéey di recruter ay nit di def euh, euh, benn am association boo xam ne bu bu mag bu privé bu mu jiite loolu man dama koy encourager rek parce que lu mu def rek ci ci emploi ñun day gën a jàppale. Euh, jërëjëf euh, Abdou Ndéné Sall yow yaay directeur général euh, société nationale du gestion du terre li ñuy njëkk nag yow responsable politique nga ci commune bu commune bu Tivaouane ndax mën nañoo xam parti bii di APR ak mouvance présidentielle bi nan la mel ci département bu Tivaouane waaye rawatina commune bu Tivaouane bi nga xamante ni foofu nga nekk. donc commune bu Tivaouane moom de waa li ñuy wax benn bokk yaakaar ànd nañu ànd nañu toujours bu ñuy def campagne ñoo koy ñooy def ñooy campagne noonu donc foofu amul problème noonu parce que quand même euh, APR euh, bi muy jël maire bi euh, moom moom ak kii rek àndoon presque moom ak honorable député Diop si biñ jëlee ñeneen ñi bi leen gañee ñi nekkoon ti benn bokk yaakaar bi ànduñu ak ñun ñoom ñëpp ñu ñëw. donc vraiment amul amul man gisuma fa benn ay contradiction yu mag wala ay xëccoo yu mag yu bëri parce que ñoom ñëpp vraiment président équilibré na ñëpp ñëpp jox na leen ay cër bu dee suñu député yi biñ dee tànn député waa PS dañuy tànn jël leen ay député ah donc euh, ñun am na ci ay nomination am na ci aussi ci ay haut conseil au conseil des collectivités territoriales ak conseil ak euh, H euh, au conseil. conseil social am nañ fa ay nit quoi donc vraiment les choses sont équilibrées ba nga xam ne ñëpp gis nañ seen coalition bi daal ñëpp gis nañ ci seen bopp ci vraiment participation bi ñuy def ci li président permettre ñu participer ci nguuram. waaw dañuy faral di dégg euh, département yu bëree bëri di faral di euh, ñaxtu kon yéen département bu Tivaouane yéen gis ngeen seen bopp ci lu jëm ci ay poste de nomination. waaye gis nañ suñu bopp mais nag xam nga dara du doy. parce que li ñuy séddale bu fekkee doyul pour ñëpp bon toujours dinañu bëgg ku ñu dolli mais vraiment ñi ngi sant yàlla quoi. Euh, bu paasee nomination yi ndax tey mën nga ñoo wax tamit ay réalisation yoo xam ne euh, président Macky Sall def na ko ci Tiwaawoon. boo jëlee ICS bi nga xam dafa nërmiru woon nga xam ne nit ñi nekkoon nañ ci jaaxle 3000 emplois amul bi président ñëwee moom la seeti ay partenaires ah ñuy ay indiens yu ñëw relancer ko. nga xam ni ICS daanu na. mille emplois dans le département mu daal di koy redressé ñu ko redressé yaakaar ñëwaat nit ñi commencé waat liggéey production bi ñëwaat loolu mooy première réalisation boo xam ni mag na bu mu def mooy liggéey c'est-à-dire indiwaat expérience liggéey deuxième réalisation bi xam nga la route ñaay Niayes maintenant dafa traversé euh, Kajoor bi ah lu lu lu sori jaar Noto jaar Mboro dem route bi moo jógee fi dem ba Saint-Louis presque route boobu quand route bi nga xam ni que ñaay ba li ñu fa doon bay yëpp nga xam ni daawu ñu am prix bu baax parce que nit ñi dañ daan daan fekk fi ñu nekk fay leen prix bord ñoo ñëpp léegi am nañu tali bi nga xam ne bu ñu béyee dañ koy indi fii dañ koy indi fii tur boobu dafa dem ba ay phase booy yooyu yëpp mu jël ko route boobu aussi route bi nga xam ni xaaroon nañ ko du yàgg te bi ñuy def route bi marché yu mu romb yëpp ak électrification dëkk yi mu yëpp def nañ fa électricité def ay marché def fa marché noto bi et tout ça donc vraiment loolu muy réalisation bu mag nga xam ni président defal na ko département Tivaouane boo jëlee boo bàyyee loolu aussi def na ay écoles yu bari naa département Tivaouane def nañu aussi ay piste def nañu aussi euh, li nga xam ni moom la ñu gën a apprécier mooy li ñuy defal suñ sëriñ mooy amélioration des des infrastructures religieuses au niveau de Tivaouane nga xam ni bu ñu amoon ay gàmmu wala daal di daan métti ala day dëkk di tànt et mu defal ñu ay ay ay ay ay place ah defal ñu un centre d'accueil defal ñu ay salle de conférence ba nga xam ni léegi gàmmoog activité religieuse bu mu am dañuy jëw rek daal dugg suñu salle taal suñu climatiseur vraiment mu doon loo xam ni ñëpp dañ ko rafetlu parce que vraiment Tijaan yi la waroon loolu président Macky Sall moo ñu ko defal ba pare defal ñu 17 kilomètres de route defal ñu aussi rocade bi nga xam ne moo wër Tivaouane ki ki important Tivaouane léegi dafa nekk ci benn espace bi nga xam ne dafa facile de gérer ba ka am dafa am porte d'entrée bu jógee Thiès porte d'entrée bu jógee eh, vraiment Saint-Louis porte d'entrée bu jógee Xombol ak porte d'entrée bu jógee Mboro loolu yëpp nag mu mu def ci ñaar rocade benn rocade nord benn nga xam ni. mën nañu nekk ni Tivaouane dafa nekk ci benn cercle waaw wana benn cercle bu ngand bi nga xam ne boo boo jëlee après cercle yooyu yëpp dafa am oto am na kii ci jógee tali ci jógee daal di dugg dem ci mosquée bi mu doon vraiment un aménagement bi nga xam ne ñun ñëpp apprécier nañ ko. est-ce que lu jëm ci euh, lu jëm ci wàllum euh, faju euh, lan la fa président def ak lu jëm ci wàllum électrification. ah bul fàtte ni village yu bari village yi ngay dégg nii bi ñu fekkee bi ñu ñëwee taux d'électrification village yi dañ ko fekkoon à peu près mille cinq cent. ñu yox mille cinq cent mille six cent lañ fekkoon village ñuy équinoon ci at ci Sénégal yëpp Sénégal président yokk ci presque deux mille quatre cent villages yu ñu ci yokk deux mille quatre cent village yooyu Sénégal ki am na ci yu bëri département Tivaouane am na ci boo demee fu mel ni Mbéyéem boo demee fu mel ni Ngandiouf boo demee fu mel ni Koul fu mel fu ni Médina Dakar am na village yu bari yoo xam ne bokk na ci village yooyu. ñu def jëm ci wàllum santé. ñu bi ci wàllum santé aussi am na lu bëri lu ñu def donc lu jëm ci wàllu santé lii waa Tivaouane di gën a ñaxtu mooy euh, école euh, mooy mooy hôpital euh, El Hadj Malick Sy bi nekk foofu nga xam ni dañu bëgg ñu relever ñu relever plateau médical bi loolu aussi ñu ngi ciy ñu ngi ciy def. ah ñu ngi ciy def pareegul ñu ngi ciy def bon démb rek amoon naa chance quand même rencontrer ministre la santé maa ngi ko ci soññaat aussi moom ci boppam am na ay promesse yu mag yu mu ci def dem na promettre na aussi sëriñ bi sinon aussi am na ay ay initiative privée yi nga xam ne vraiment temps yi vraiment soqali nañu trop ci affaire boobu parce que quand même hôpital bi nga xam ne day jël ñu bare bare bare bare parce que tout le département Tivaouane léegi dañuy ñëw Tivaouane e tout ça ñu relever plateau médical bi si hôpital bu bees bu nga xam ne presque dañ ko tabax ah donc vraiment loolu aussi euh, président mi ngi ciy def. ki mu ko dénk muy euh, kii kii bi euh, conseil départemental bi aussi. ñoom aussi ñi ngi góorgóorlu pour def pour def ci dara. d'accord euh, jërëjëf mbokk yéen a ngi déglu Rewmi FM euh, tey nag euh, ñoo ngi invité directeur général société nationale du gestion du terre Abdou ndeene Sall fi nga xamante ni moom mooy Tivaouane am na benn final bu ñu la tuddee woon foofu nga nekkoon parrain bi nga waxoon ne da nga def ay jéego ngir jàppale ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi ci seen wàllum xëy yooyu maanaam mbirum emploi yan jéego nga xalaat ne soo ko defee ndaw ñi nekk Tivaouane dinañu gën a am liggéey. xam nga emploi moom euh, ku waxal dëgg rek xam ni problème la ci Sénégal parce que lu tax ñu mu am problème Sénégal problème de de de de divergence entre les formation ak profil emploi yi ñu am donc vraiment moo tax euh, président li mu yëkkati temps yi di def ay école professionnelle di ko def ci département yëpp nga xam ni ñi li ñuy jàng dañu am possibilité bu ñu jàngee pare rek am fu fuñ fu ñu liggéeyee ñun nag au niveau du du département dañuy bëgg filière boobu parce que département bu nekk day am benn école pour loolu ñu tijji fa les filières des métiers des mine parce que quand am nañ fa ICS am nañ fa GCO am nañ fa vraiment mine yu bëri yoo xam ne soxla nañu ñooñu aussi ñi ngi def tout pour bu ko defee yu ñooñu dans le responsabilité social d' entreprise ñu tijji aussi ay école de formation yi nga xam dina tax nit ñi bu ñu ñi nekk aw mën a am formation pour mën a liggéey foofu parce que li li li li difficulté bi rek mooy que yenn saa dañuy soxla ñoom ay liggéeykat yoo xam ne amul formation bi au niveau de de Tivaouane mais vraiment ñi ngi góorgóorlu aussi man bi ma nekkee aussi euh, ministre délégué au chemin de fer am na ay temps mu bëri woon ay accident chemin de fer foofu à Tivaouane léegi biñ ci waxtaanee ñu ni il faut que ñu ñu ñu jël ñu jël ay nit ñu garder ñu def ay passage à niveau garder boobu temps aussi ñoom ñu jël benn GIE bu nekk Tivaouane euh, prestat service bu nga xam ne bu jël au moins quatre-vingts personnes mën naa wax ni loolu man maa tax mu am y a quatre-vingts personnes nga xam ne dañ leen répartir ci chaque ñu jël fa ñu nga xam ni ñoom ñooy ñoom ñooy nekk ci passage à niveau yu garde yi ñu defal leen induction formation pour que ñuy avertir danger nit ñi bu ko defee accident train bi di mbëkk nit wala mu mbëkk oto mu wàññeeku. donc quatre vingt quatre vingt emploi yooyu man mën naa ko jël ni loolu man maa tax ma am waaw man maa ko aw def ci jeunes yi waaw euh, léegi euh, ville bi nga xamante ni mooy Tivaouane tey ak euh, Tivaouane li ko wër ci ay dëkk yu mag ak ni mu nekkee dëkku kilifa ndax jàppoo ne am na beneen taxawaay boo xamante ni wala beneen xalaat boo xam ne Tivaouane dina nekk une ville lumière religieuse touristique ci li ñu nekk parce que actuellement quand même ak projet yi fa président am parce que président joxe na joxe na direction bi. parce que li mu def amélioration des vies religieuses mu def un programme bu mag ci Tivaouane def fa vraiment centre d'accueil yokk làmp yi temps yi xam nga amoon na am na benn programme électrification solaire. Mm-hmm. ah bu mag ñun am nañ ci aussi ñu teg ko ñu ngi koy commencé teg ci yi te amoon nañu beneen programme bu nga xam ci wetu jàkka ji. Mm-hmm. boo fa demee gis ni foofu yëpp c'est vraiment euh, un quartier à lumière et puis am nañu aussi. ci benn projet pour faire de Tivaouane une ville verte plantation bu bëri donc vraiment dañu bëgg Tivaouane mu mel ni Médine Europe mu doon une ville lumière ah parce que ku xam Tivaouane xam ni c'est une ville sainte xam ni El Hadj moo fa ñëw nekk fa liggéey fa loo xam ni que bon ñun ñëpp ñu ngi góor góorlu ku dëkk Tivaouane rek fi mu ne nii yaa ngi góorgóorlu pour di fa def ñun ñi ñëpp mënoon nañu wut ñu kër def ko Dakar mais ñun ñëpp dañu tem tabax ay kër yu yu yu yu yu bakkane pour wan ne rek nii pour donner le bon exemple bu ko defee nii ñëpp def ko bu ko nii ñëpp defee ak taalibe tiijaan yi def nañu ay lotissement aussi pour tiijaan yi bëgg ay kër Tiwaawan ñu ñëw fa am fa ay kër et tout ça yu ànd ak ndox ànd ak courant ànd ak yëpp vraiment euh, loolu aussi muy lu baax pour dundal dëkk bi parce que bu fekkee ñu am alal ñu am te ñëw nañu Tiwaawan rek consommation bi di gën a yokk yëpp day gën a baax ci Tiwaawan te vraiment formation bi daal moom la ñuy wax moom la ñuy woo parce que aussi DER am na ñu ñun def nañu ay programme yu bëri encadré quand même euh, may remercier directeur DER parce que vraiment man euh, amoon na benn programme financé mais à peu près trente million yu nga xam ni dañ ko jox quand même dañ ko jox à peu près cinquante groupement ñii ay deux cent cinquante mille ñii ay cinq cent mille ñu am ay petit ak petite euh, nu mu tudd activité boo xam ni dafay générer revenu ñu ngi ci di liggéey tout ça donc yooyu ñooñu bu ñu remboursé ñu lebal ñeneen donc vraiment man sa bopp tim ci joxe woon naa PAMECAS benn caution bu cinq millions pour am cinquante millions cinquante millions yëpp aussi financé nañ ko les femmes et les jeunes pour ñu am ay activité ñi ngi ñi ngi jéem ci commune du Tivaouane waaw kon euh, liggéey boobu euh, liggéey bu am solo la kon mën nañoo wax ne euh, Abdou Ndéné Sall moom ma ngi xaar nekk maire bu commune bu Tivaouane déedéet parce que am na maire déjà am na maire ba fa nekk dèjà muy sama rakk xam nga dañu war a xool ba xam li mu ngi liggéey wala mu liggéey ak nan lañ ko mën a jàppale mu liggéey mais vraiment man aw ma mais parce que man maa gagné woon man maa doon tête de liste département tête ko ko jox. donc vraiment maa ci d' accord sëriñ bi nañ ko jox man ñu jox ko donc vraiment loolu bu ko fekkee ne loolu man maa ko def du ma wëlbatikuwaat aussi di def leneen. waaw mais su su mandaam xool daal mooy jàppale ko. bu fekkee ni am na lenn loo xam ni réussir ko ñu ñun ñëpp ñu jàpp pour mu réussir ko c'est ça qui est important l'essentiel daal ñu def loo xam ni dina jariñ population bi dina jëriñ population man sama ambition politique mooy accompagner président Macky Sall pour président Macky Sall bàyyee man ma ma bàyyi loolu rek loolu moom mu indi woon ci politique maa ngi commencé politique ak président Macky Sall moom bu paree laay pare léegi daal dina fi jëfandikoo tout pour que commune bi daal parti président Macky ak ñi koy accompagner ku fay nekk maire mu nekk ci. ci ci ci ci parti au pouvoir. mais mais euh, ni nga ko waxee sànq euh, financement yi nga xamante ni euh, def nga ko fa ak ndaw ñi nga xamante ni jàpp nga leen ñuy ñuy jàppale nga leen ñu am xëy di liggéey est-ce que tey askanu Tivaouane ñoom bu ñu sàkk woon nga nekk maire dëkk ba lan mooy nekk sa taxawaay bu boobaa. waaw xam nga problème bi mooy as yaa askanu Tivaouane yaa aussi suñu parti xam nga ñun man dama dama gëm discipline de parti. parce que loolu dañuy wax dañuy wax ñun discipline de parti quand même président Macky Sall mooy moom pour pour pour man moom mi nga xam ni que mooy jiite parti bi moom mooy définir parce que vraiment loo xam ni pour liggéeyal réew mi rek pour liggéeyal réew mi foo mën a nekk rek mën ngaa liggéeyal réew mi même boo nekkul maire mën ngaa liggéey maire bi dañuy xaar président Macky Sall bu décidé ne kii la ñu bëgg dëkk bi kii laa bëgg mu doon fa ñun ñëpp ñu jàpp pour kooku pour kooku dem. mais mais mais euh, il faut ñu wax tamit tuuti arrière tuuti comme li nga wax sànq ni que ne président Macky Sall su bàyyi woon politique mais yow euh, sénégalais nga comme ni mu nekkee sénégalais li ko war liggéeyal réewam ni mu ko waree noonu la la waree même bu bàyyi woon politique yow war nga man a continuer. non man maa ngi liggéeyal sama réew. waaw yàgg naa liggéeyal sama réew parce que man vraiment boo gisee le programme de Touba la programme bi Ablaye Wade defoon Touba les la ah maa ko man maa ko man maa ko defar lépp man maa doon maa doon lu ñuy wax maîtrise d'œuvre tali bu ñu fa tracé. cent vingt huit kilomètres maa ko tracé château d'eau bu ñu fa def maa ko implanté mband yu ngand yi wër Touba yooyu yëpp maa ko implanté man yàgg naa liggéey sama réew vraiment ah Ila Touba bi ñu koy def ah man maa defoon les premières études d'identification études géotechniques yi tout ça donc vraiment yàgg naa liggéey moo tax man la foo mënti nekk rek mën nga liggéey sa réew c'est pas ci politique rek nga mën a liggéey sa réew et que nit ñi dañoo war a bàyyi def politique un moyen de promotion sociale foo mënti nekk rek bëgg a sa réew rek war ngaa mën a liggéeyal sa réew man war ngaa mën a liggéeyal sa réew donc vraiment man gëw ma ni que nekk ci benn poste mooy tax nga liggéeyal sa réew loo liggéeyal sa réew rek bu fekkee da ngaa choisir loo xam ni mënoon nga dem beneen dëkk gagné plus deux fois ou trois fois plus nga toog Sénégal di ko def rek loolu yaa ngi liggéeyal sa réew. jërëjëf euh, directeur général Abdou Ndéné Sall waxtaan nañ ci commune bu Tivaouane foofu nga xamante ni responsable politique nga fa nekk ci parti bii di APR yow ab euh, polytechnicien nga ndax mën ñoo xam tuuti yow euh, fan nga jàngee. man maa ngi jàngee euh, un peu à Tivaouane après ma ñëw Dakar et si sama turando ma doon euh, Abdou Ndéné Ndiaye ancien directeur de l'ENAM fii la amee entrée en sixième dem lycée Blaise Diagne am fa bac après ma def concours polytechnique dem polytechnique def six ans doon ingénieur depuis 86 vraiment donc j'ai j'ai actuellement trente cinq ans de trente cinq ans d'expérience ma paree loolu je suis rentré dans un projet Banque mondiale ah projet de gestion et développement urbain où j'étais presque directeur technique donc euh, de ordre principal ma jógee foofu ma tijji entreprise avec des polytechniciens ñu ñu def groupement tijji sagesse ma def fa dix ans ah après tijji Afrique Consult def fa dix ans ah président ñëwee ni day day politique moo xam ni que li muy di wóolu naa ko ci politique bi muy def comme xamoon naa ko mu ñëw commencé ko jàppale. ah ba 2014 ma gagné ma nekk tête de liste département tête de liste commune gagné ñaar yëpp. Ah en tant que tête de liste amul benn dëkk. actuellement gisoo benn département boo xam ne benn nit moo doon tête de liste de la commune et tête de liste département. Mm-hmm. amul parce que ay xëccoo moo fay am. Mm-hmm. donc boobu temps amul woon xëccoo Tivaouane parce que man maa fa nekkoon. mais percée boobu nag ci politique. lan ban jéego la ah? percée bi ma que dama amoon ay opportunités avant en deux mille deux mille deux mille euh, deux mille quatre mille neuf cent quatre-vingt-quatorze bi mu amee dévaluation dafa amoon benn projet bu financé bu bu AFD financé woon. Mhm. muy fonds social développement un peu pour pallier quand même euh, les chocs négatifs du bu eh, bu bu kii bi bu dévariation bi boobu temps dafa amoon de grands projet yu ñuy wax ay projets yi nga xam ne dañu ko def haute intensité de main d'œuvre mhm. projet yooyu nag. vraiment dañ ma dañ ma maa doon mbir dër principal bi donc dama ci amoon beaucoup d' opportunité tuwaaw tuwaaw ñu bari dama ñëw jëloon leen ñu ñëw di liggéey si fii Dakar ah boo gisee gis nga fii nii solidarité bii ngeen def nii ah tali mhm. man maa ko jëkk defar maa ko jëkk maa ko jëkk surveiller mhm. ak adduction d'eau potable mhm. indi ndox ci kii yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp maa ko jëkk defar donc vraiment yooyu nag bi ma amee opportunité bu mu indi woon ñu bari ñu liggéey fii am ci expérience ci ay entreprise ñu donc vraiment loolu moom moo amoon mu am opportunité et puis euh, famille familiale parce que pour fàttali ni sama maam c'était c'était sama maam yëpp ay chef de canton la ñu woon daal Kayor donc bi ma ñëwee di wut département bi dëkk bu ma dem ñun ah yow de sa maam moo ñuy li foon boo ñëwee bëgg boo ñëwee bëgg fi dara dinañ la mën a jàppale parce que xamoon nañ sa maam def fi dara lu ñaaw tout ça donc vraiment moo taxoon ma am chance doon tëddee si département tëddee si commune gagné ñaar yëpp pour fàttali Idrissa Seck moo doon gagné Tivaouane. ak dix mille voix de plus. waaw ak moo doon gagné Tivaouane commune bi. même bi ma ko gagné moom ci boobu dañu ma foo jaar <laughs> pour te dire rek donc vraiment. boobu temps léegi nii xëccoo mën na fa am. ah kon yow avant ñëw Idy moo doon gagné commune bi Tivaouane ak département ko doon gagné gis nga avant avant tu tu as vu ma ñëwee gagné ko moom sax waa jël donc vraiment temps temps boobu man dis commune gagné ñaar yëpp. donc vraiment léegi nii xëy na xam nga bu ñuy màgg l' ambition vient. ambition ñeneen ñu ñëw. et tout ça ñu loo xamante ni ñu la fay dëkkoog tëkkoog yooyu. non man diir mbagg daal man kenn ma mbagg parce que man yëpp ñi ku fa ku fa ku fa ku fa solo ndomba tànk presque man maa gañ a jox la ko bu dee département bi man maa gagné joxe de commune man maa gagné joxe kenn dëkk ma fa tàgg vraiment te bokkuñu mën ak ñoom ambition. te même yenn yi tamit jàpp ngeen jàppale ngeen leen. élection yëpp man damay jàpp amul benn élection bu nekk foofu te élection yëpp depuis depuis 2012 élection bu fa am maa jiite département mm. a jiite département bi. d'accord élection yi fa am yëpp depuis 2012. depuis 2012 chaque fois président daf may renouveler la confiance ni ma demal jiite département bi te ñun maa donc amul benn élection moo fa perte. mais mais mais ah, ah. loolu aussi ñu ngi ñaan yàlla toujours aussi élection yi di ñëw yëpp ñu gañewaat ñun daal suñu nguur dañu bëgg mu toog fi ba fii deux mille trente cinq ba PSE bi jeex et loolu yëpp moom dinaa ci liggéey ba nga xam ni fii ak deux mille trente cinq nguuru président Macky Sall ak ji mu àndal benn bokk yaakaar ñoo fi toog ba deux mille trente cinq. parce que euh, euh. def nañu loo xam ne dañ ko teg. ah il faut que ñun comme ñu ko teg ñoo ko xalaat ñoo ko mën a exécuter pour si population bi gis ci boppam. waaw léegi euh, maire bu Tivaouane gestion maire bi ndax jàpp nga ne maire bi euh, def na fa réalisation wala jàpp nga ne ba léegi nii am na lu des. non xam nga réalisation du doy mais liggéey na quand am na lu muy liggéey mais réalisation du des war nañ ci mën a yokk war nañ ko mën a améliorer mën nañ ko wax une une participation beaucoup plus euh, population bi boo leen di il faut nga leen ñu participer. parce que population moo xam li mu bëgg et tout ça laaj na un peu de mais vraiment mën nañu saluer quand même ni liggéey na fa ko ku wax ku wax li liggéeyu fa aussi da ngay wax loola xam ne moo la neex rek quoi mais mi ngi liggéey mais liggéey du doy liggéey du doy et puis président dimbali ñu bu baax parce que vraiment projet yu bari yi fa nekk président moo ko def quoi vraiment parce que maire yi xam nga seen budget dafa tuuti boo jëlee budget maire Tivaouane ay quatre cent millions au maximum lay doon quatre cent millions benn benn kilomètre de rek la def comprendre vingt kilomètres donc boo nee mairie damay réaliser des fois mairie dañuy def erreur parce que mënuñu réaliser ils n'ont pas les capacités de réaliser seen budget yi tuuti action sociale lañ ci mën def ak fay salaire comprendre nga mais maire yi boppam day am war am entretien di wuti ci yeneen dëkk yi di wuti am relation yu baax ak président pour mu dimbali ko ci mairie bi. mais mais parfois mairie du ñu am carnet d' adresse boobu yow mën nga am carnet d' adresse boobu mais léeg-léeg mairie du ñu am carnet d' ah, ne. duñ ko am mën naa ko moo tax ñun ñu ñi xam dañu am carnet d' adresse bi aussi. parce que kenn mënul fekk kenn du benn nit moo mën a nekk fépp il faut que fa nekk aussi yéen ñi am carte d' aussi ngeen koy nii di recommandé di indi ay nit ñuy def dara foofu. Ah. ñëpp bu ñu jàppee rek dëkk moom. ñu fa dëkk ñëpp bu ñu amee benn objectif mooy defar dëkk bi. ñu génn ñu gis seen bopp rek affaire bi dina dox. àllarba ji nga xamante ni moom lañu ñu génn ak euh, alxames première ministre bu kanada ñëwoon euh, Sénégal euh, si benn visite officielle moom ak président Macky Sall nag waxtaan nañ ci lu baree baree bari coopération boobu diggante ñaari réew yi yow nan nga ko gisee. xam nga man coopération canadienne moom ñun dañ koy bëgg parce que ñun Canada moo ñu formé parce que bu fàtte pour Polytechnique de Thiès kanada moo doon moo doon moo doon moo moo joxewoon bourse yi mu joxe woon lépp parce que man bourse bi may bi may jàng bourse bi ma amoon Canada moo ma ko jox bi ma nekkee polytechnique donc ñun polytechniciens yi nga xam ni que dañuy jàngee polytechnique Thiès ñun Canada dañ ko yàgg xam professeurs yi ñu jàngal yëpp Canada lañ nekkoon donc ñun te ñu ñëpp ñi nga xam dañu war a continuer seen jàng après Canada lañ dem continuer seen jàng parce que ñoom la ñu amaloon relation donc ñun boo ñu laajee ci affaire Canada on est plus proche ah quand même ci ci ci entreprise canadienne yi que entreprise française yi vraiment parce que ñu moo boo financé benn école implantée rek ñun ñun ñun Canada quand même euh, moom moom la ñu gën a d' accord dal tout ça yàgg na jàppale Sénégal maintenant comme ñoom it dañuy wax français ñun ñuy wax français il faut que vraiment ñu renforcer coopération bi rek parce que coopération bi ñu mës a am ci Canada yëpp ay coopération yu gañaar gagnant yu baax a baax a baax. kon euh, su ma la déggee tey entreprise euh, canadienne yi yow euh, boo sañoon ñu gën a dugal seen loxo ci biir réew mi. waaw entreprise canadienne yi moo jóg xam nga Hydro-Québec ñëwoon na fi. ci affaire électricité bi bu ma sañoon ñu gën a dugal. seen bopp ci kii bi parce que am entreprise américaine yi entreprise canadienne yi comme des entreprises américaines xam nga loolu nord américain ils ont le même même conception ak ni ñuy doxale te loolu moo gën a moo war a moo gën a baax ci ñun te xam nañ leen parce que quand même bu ñu fekkee ni ñoom benn école des ingénieurs ñoom ñoo ko financé woon formé à peu près trois cent ingénieurs yi nga xam ni ñoom ñoo yem lu ñu jàng bokk lu ñu jàng et tout ça école politique de Montréal école yem programme ñoo yem li ñuy jàng donc vraiment dina dem un alignement bi nga xam ne que ñoom entreprise canadienne yi bu ñu ñëwee fii am na entreprise canadienne yu bari yoo xam ne ay sénégalais lañ ñëw fii jël ci polytechnique yóbbu leen beneen dëkk ñuy liggéey donc bu ñu amee liggéey fii indi sénégal yi yooyu nga xam ne jël nañ leen yóbbu leen ci beneen dëkk loolu aussi lu baax la ci Sénégal lu baax la ci ñun ñii ñëpp. Euh, kon moo gën euh, yeneen entreprise yi tey soo ko doon méngale ak entreprise française yi. non entreprise yëpp baax nañu entreprise française entreprise canadienne mais dama ni man. man ak école par rapport ak école bi ma jàngee nga xam ni ñoom ñoo ko financé polytechnique man entreprise canadienne yi ñoo ma gën a ñoom laa gën a jublu que entreprise française yi mais entreprise yëpp baax na l'essentiel que bu ñu signé contrat nañ ko respecté ñu liggéey bu baax tout ça au bénéfice du Sénégal mu doon un contrat gagnant gaña Sénégal gagné ci ñun ñu gagné ci. léegi euh, yow euh, nekkoon nga ministre délégué chargé du réseau ferroviaire euh, ndax mën nga ñoo wax tuuti rek la nga fa def amaana mënuloo ñëw ci lépp ndax ba ngay nekk ci banqaas boobu mën nga ñëw see limal rek lenn loo xam ne liggéey nga ko fa rawatina projet bi nga xamante ni moom mooy Dakar Tamba. waaw Dakar Tamba bi ban bi ma fa nekkee dañ ko doon dañ ko doon wax mais après. dañ ko dañ ko mujj bàyyi ñu def euh, Dakar parce que Dakar Tamba sa concerne le Sénégal simplement après ñu nii dañuy def Dakar ko bi moo gën parce que toujours Dakar Bamako bi am na clientèle déjà am na une demande mooy mooy trois millions de de marchandises yi nga xam dafa war a dem ba ko mm-hmm. ah yëpp raay bi mën koo jël bu ko defee ñu wàññi quatre cent camions quatre cent camions yi ñooy jël bagage yi di ko yóbbu vraiment Bamako te quatre cent camions yooyu day indi ay accident day indi ay fraude day indi quand même yàq tali bi. lu bëree bëree bëri bi ñuy def entretien lu bëree bëri ci tali bi. règlement 14 bi ñu koy teg pour vraiment wàññi poids poids yi mais aussi yenn saa yi oto yi bu fekkee chargé duñ lu diis dañ naan du rentable pour ñoom dañuy perte moo tax vraiment loolu moom secteur boobu moom pour mu doon secteur bu baax bu mën bu mën a améliorer la compétitivité économique de l' économie il faut que raay bi dox. moo tax heureusement liggéeyoon naa ci lu bëri. Euh, ñu ngi koy continuer heureusement liggéey boobu jur na dara parce que actuellement banque mondiale décidé na financer Sénégal ak Mali pour ñu defaraat dakaar Dakar ko boo defee boo nee Dakar ko rek di nga jaar Tamba. parce que Tamba mooy ëpp léegi bu ñu demee ba Tamba nag ñu mën fa def benn ëpp ferroviaire nga xam ni dinañ mën a def dañu am ñun ay projet interne yi nga xam ni Sénégal rek moo ko moom mooy jógee Tamba dem jëli phosphate bi ci Matam jógee Tamba def trois cent onze kilo dem Kédougou pour ji di fer bi jógee Tamba def contournement en route de la Casamance parce que ak produit yëpp agricole yi ak produit minier yi am yi am Casamance donc loolu la loolu la loolu vraiment Sénégal am comme projet xam nga temps yi defoon nañu benn de redéfinir la politique ferroviaire ah, ak ministre Oumar Youm ak euh, ministre Massi Mayacine Camara ñu définir loolu la ñu loolu la ñu jàpp te loolu président président li mu autorisé gul mooy TER bi ak Dakar ko loolu yëpp yëpp dañ koy présenté pour que bu ko président autorisé rek ñu dem ci mais bailleurs de fonds yi moom taxaw nañu pour accompagner Sénégal pour que yooyu yëpp ñu financé ko. mais réseau ferro euh, ferroviaire bi nga nekk ministre délégué def nga fa réalisation yow yoo mën a teg loxo. waaw mais terre bi rek. terre bi. 37 mhm. kilomètres. 37 kilomètres fait par 3. 3 muy 108 kilomètres. deux voies standard benn voie métrique ak def toutes les études étude Dakar Bamako bi ay étude Tamba. avec un port sec yooyu yëpp man du man maay def étude bi man maa lancé ci sama sama bi ma nekkee foofu en tant que ministre délégué dañuy lancé étude yooyu yëpp joxe ko ñu defar ko lancé appel d'offre ñu joxe ko yooyu yëpp am nañ ko ba nga xam ne léegi buñ dee liggéey dootuñu de rek dootuñu defaraat étude bi parce que étude yooyu yëpp am nañ ko analyse de faisabilité étude technique yooyu yëpp am nañ ko d' accord euh, wax nga ci TER bi euh, TER bi ñu bari dañuy wax que ne euh, maanaam priorité bi mënoon naa nekk feneen daal xaalisu TER bi mënoon nañ ko def feneen yow ndax loolu sa gis-gis la. xam nga priorité ki ñu ko ku Sénégal wóolu daal di koy voté kooku mu am crédibilité muy président Macky Sall pour définir les priorités te xam nga yenn saa yi nit ñi dañuy wax rek mais bu fekkee yow nekkoo tiimoo Sénégal. xam ni yow yow la ñu wóoru teg la ci kaw nga xool quelles sont les priorités du pays boo waxee da ngay jum tu as moom moo xam Sénégal moom la ñu wóoru mu nekk ci kaw moom moo war a xam priorité du pays te xam na ko moo tax xam nga toujours dañuy laaj lu tax TER président du cëb du tëb rek di def projet parce que président bu fàtte ni bala moo def bala moo nekk président dafa wër réew mi ah dafa wër réew mi xool souffrance yi mu wër ko def kilomètres yu bari def village yu bari mu def li nga mooy mu def PSE mooy qui est la quintessence la demande d'avenir mooy PSE mooy li nga xam ni demande bi nga xam ni population moom lañ ko wax mu ni moo nekkee président pour pour pour wàññi seen métti métti ak seen souffrance dinaa teg PSE moo tax mu teg PSE PSE le projet du TER la dafa bokk dafa bokk ci dafa bokk ci PSE yaa vu léegi projet du TER il faut que ni ñi toujours toujours ñoo xam nga président bala moo def projet dafay laajte ñeenti question est-ce que projet bi dina répondre à un besoin spécifique est-ce que projet bi am na njariñ ngeen wax ni projet bi am na njariñ def yëpp mu laaj deuxième question est-ce que projet bi c'est économiquement viable c'est-à-dire ndax am na njariñ ci économie bi waaw est-ce que projet bi c'est euh, éco c'est c'est c'est commercialement viable est-ce que projet bi dina génne xaalis bu ko mën a supporter mm-hmm. est-ce que am nañu moyen pour financer ko est-ce que am nañu moyen pour mën ko gérer ñeenti question yooyu yëpp boo ci répondre avec des arguments bien précis après moom mu mën a war a joxe góo ñu daal dem ñu kenn du xëy rek def projet donc te projet TER bi bu fekkul woon nii c'était pas rentable bailleurs de fonds yi du ñu def seen xaalis xam nga projet TER bidd moo ko financé BAD financé ko AFD financé ko ñun ñu def suñu xaalis trésor français financé ko ñooñu ñëpp li ñu financé dañ leen koy remboursé du ñuy ñëw. jox la xaalis nga def ko ci foo xam ne c'est pas rentable wóor na leen du ñu am du ñu am remboursement donc c'est un projet rentable et puis le coût du TER euh, six cent et six cent quatre-vingts milliards ah le coût de l'ineffi le, le coût de l'inaction bu ñu toogee six ans defuñu dara dañuy perte ci Dakar congestion Dakar dañ ciy perte cent vingt milliards par par par par année boo toogee six ans defoo dara nga perte ñaata six cent quatre-vingts milliards donc le le coût de l'inaction pendant six ans finance de terre toog ba ñu def dara pendant six ans li nga naroon perte moom nga jël financé ko ci terre te terre bi fàtte ni dina am nit ñi bu ci nekkee dañuy paas et tout ça donc Sénégal Dakar dafa xat Dakar c'est zéro virgule trois pour cent de la superficie dakaar abrite mm, euh, un quart de la population vingt cinq pour cent de la population ñoo ñëw Dakar di fi buuxante booy dem fenn sax da ngay teel a jóg ndax xat-xataayu dëkk bi yaa bi loolu yëpp encombrement bi parce que 66 pour cent des activités Dakar lañ ñëw toog fi donc président mu ni loolu dafay dafay dafay tirer mon économie vers le bas lan laay def parce que c'est un problème structurel mu ni devait amener une solution structurelle solution structurelle bi ci externalité négative de l'encombrement à Dakar ak nit ñi ni fi mu ni damay def ay pôle urbain pôle urbain de Diamniadio pôle urbain de Dagu Xolba pôle urbain de la Rose pour wàññi nit ñi nekk Dakar bu il faut mu yóbbu foofu yëpp ay activité moo tax ministères yi dem foofu parc industriel dem foofu ah yu bëri dem foofu bu ko defee ñooñu nag il faut mu relier leen ak un transport fiable un transport sécuritaire un transport rapide et un transport vraiment confortable pour jëli nit ñi dem dem fii ñëw fii ki nga jam ñaajo c'est extrêmement important jam ñaajo dafa mel ni xol bi nga xam ne dafay battre ah dafay battre pour relier tax xol boo xam day battre xam xol bu battre sang bi foofu lay ñëw concentré dem benn partie bi ñëw dakaar ah comme un cœur qui ba ki irrigue ses artères irriguer artères yi yéen ñi dem Thiès bu nee ba jam ñaay bu la neexee nga dem kaw ci Mbour Kaolack bu la neexee nga dem Thiès bu la neexee nga dem Ruddi ñaay ah mu doon benn pôle bi nga xam ni mooy ñëw mooy de dakaar nga ñëw Dakar donc c'est extrêmement important léegi nag léegi nag déjà pro projet bi boo nee boo nee Sénégal Sénégal xamuñu li ñuy def c'est pas rentable il faut nga wax BID xamuñu li ñuy def te BID quand même c'est une grande banque la banque islamique développement la BAD l'AFD et tout ça donc vraiment nit nit lu mu xamul na nga ciy maanu mais Sénégal du ñu maanu ci dara parce que président bi nga xam ne moom la ñu teg ci kaw mooy président la république mooy lay xool les priorités de la population parce que moom moo moom moo digg moo wax ak population ni leen danaa leen defal lii ah, ah, ñu ni ko ah. mu daan koy defal. donc c'est un projet bi yéen ko teg bu démb doon. waaw waaw parce que amu ci benn regret parce que problème de Dakar. Mm-hmm. Dakar congestion Dakar bi il faut nga dindi ko quel est meilleur projet pour décongestionner Dakar mooy def ay pôle urbain ba pare relier leen par un train rapide bi nga xam ni du mënul am embouteillage xam nga train amul embouteillage. Mm-hmm. parce que bu demee rek beneen topp ko parce que dañu leen tegal seen raay dañ leen tegal yoon. Ah, autoroute à péage sax day am embouteillage parce que oto yi bu ñu paree rek mu am embouteillage alors que l'autoroute le, le, TER vient en complément de l'autoroute à péage pour décongestionner Dakar pour améliorer la mobilité urbaine entre Dakar et sa banlieue TER bi quand c'est extrêmement important parce que 14 gares lay taxaw 14 gares la gare de Dakar la gare de Colobane la gare de Yëmbël Thiaroye Kër Massar yooyu yëpp dinañu dinañu wàcc par exemple booy dem léegi Kër Massar jóge Dakar en en sept minutes nga egg avec loolu il faut saluer il faut saluer aussi le fait que terre bi li nga xam ne te suuf si nga xam ne ñun ñoo ko moomoon chemin de fer moo ko moomoon parce que chemin de fer mooy première industrie bu amoon un titre foncier ferroviaire léegi yooyu yëpp jëlaat nañ ko parce que cinquante mètres c'est-à-dire quinze mètres de part et d'autre de l'axe du chemin de fer vraiment c'est un titre foncier qui date de 1920 ah gars yi duggoon ci ak kii tout ça bi ñu defaraatee chemin loolu yëpp récupéré nañ ko et terre bi tax na boobu quartier yi nga xam ne romb na ko yëpp c'est des quartiers yi nga xam ne vraiment structuré nañ leen defar fa ay truc defar ay. ay accompagne accompagnement social passerelle yi def nañ ko passerelle yi. loolu ba léegi euh, ñooñu ñoo ngi jàmbat ay yëmbal Rufisque Thiaroye non loo xam nga loolu da nga appelle la mobilité social boo gisee terre bi actuellement ba léegi commencé gu ñu dawal parce que il faut que ñu def mobilité sociale acceptable c'est-à-dire ñu def passerelle yi def rétablissement routier yi pont yi ba nga xam ni gis nga pont bi ñu defar Passo fi mhm. pont Passo bi lu ma douze ponts yu mel noonu la def ci terre bi ba pare def au moins une trentaine de passerelles nga xam ni que boo jógee boo jógee ci bii côté dem ci bee côté ni nga mën a jàll dans la sécurité parce que bu fàtte train bi électrique la train bu bees tax am électricité am yëpp donc pour pour bañ a kenn moo tax ñu leen defar passerelles yi passerelles yi dina pare ak jàmm ak salaam bu ko defee ñu dawal train bi dans la la sécurité parce que dawal train bi jógee jógee jam ñaajoo ñëw ba fii xam nga loolu pare na bu yàgg parce que bu parewul woon duñ ci dugal président depuis depuis le 14 janvier dugal ko ci def mooy mobilité sociale passerelle yi ak pont yi pour que nit ñi mën a jóge fi dem fee sans problème parce que il faut ñu murer kii bi ba nga xam ne kii du dugg ci plateforme bi léegi parce que c'est dangereux électricité bi moo tax. donc vraiment amul amul benn problème ñi ngi liggéey léegi ñu pare mu jeex. tout ça d'accord léegi euh, Abdou Ndéné Sall xam nga yow. Euh, projet mënoo ko te amoo. étude de faisabilité. étude de dañ ko def étude de faisabilité nga def étude de faisabilité économique mun ñu la projet bi c'est rentable loolu boo ko amul bailleur de fonds boo dem ni ko financé ma du la financé comprendre nga. Mm-hmm. donc ñun on est des experts quand même. yàgg du léegi la ñu commencé liggéey. Ah, mais yow sax xam nga teer bi xam nga teer bi yow ku tudd teer bi il faut da lay tudd ñu baree baree baree sax. <laughs> ministère ren la <laughs> mais yow ñu bari ci teer bi lañ la xamee. xam nga yow boobu yaa nekkoon ministre délégué euh, du réseau ferroviaire beneen bi tamit euh, yow bi nga jógee foofu tamit da ngaa ñëwaat ñu joxaal la nga nekk directeur général lu société bi teer euh, lan moo tax daal ñu insister di la di la bàyyi foofu noonu. xam nga xam nga man nag je suis inspecteur de chemin aussi. parce que bi ma génnee polytechnique chemin de fer laa jëkk dem mais un an laa fa def parce que xam naa ni pourtant yooyu gars yi bëgguñu investir amul amoo woon amoo woon plan de carrière moo jógee fa dem dans un projet banque mondiale mais vraiment xam naa chemin de fer bi bëgg naa chemin de fer parce que biñ nekkee xale aussi chemin de fer lañ doon fooyee parce que bu fàtte ni raay bi ñun que suñu wetu kër la nekk à Tivaouane donc vraiment muy secteur bu bëgg te xam ni secteur bi nga xam ni moo mën a dimbali. moo mën a dimbali dëkk pour bëggee développer parce que ci chemin de fer rek nga mën a transporter lu lu lu diis te sori te am kii bu baax xam nga am na beneen projet bi nga xam ni président bëgg na ko defar bu ñu paree lii yëpp dañuy refaire vivre le chemin l'ancien chemin de fer raay raay bi jógee Thiès dem ba saint bu jógee Saint-Louis dem Richard Toll après mu dem Ndioum après wàcc daara Linguère dem wàcc Touba ñëwaat foofu la ñuy wax la boucle du Waalo la boucle du Waalo loolu bu ñu ko defee li ñu war a béy ci ci ci ci ci fleuve bi yëpp terre bi train bi dina ko mën a jël indi ko bu ko defee xam nga le transport day impôt prix boo gis prix de revient boo gis dangay da ngay dafay am prix bu mag boo xam ne transport bi moo ko ci moo ko ciy yokk léegi trans boo boo boo transporté par train kii bi day yomb gis nga gis nga lu tax mooy am ay mévente ci ci ceeb bi ñuy béy waalo ba. mais parce que transport bi bu ñëw Dakar dafa cher bu transport bi yombee ñu mën ko indi fii ak raay bi bu fekkee prix bi dina accessible parce que pour pour pour ñu am autosuffisance alimentaire de riz nga xam ni prix bi dina baax il faut nga def mix marketing investir sur le prix ah sur le sur le sur le produit investir nañ sur le produit parce que ceeb bi ñuy defar moo gën a baax beneen ceeb bi de quinze pour cent boo jëlee l' ensemble des valeurs ah, donc investir nañ ci produit il faut investir sur le prix hmm, prix bi pour investir de prix bi il faut ñu defal leen ko moyen de transport bi nga xam ne nañ ko mën a indi te du cher il faut investir sur le placement et la promotion placement bi promotion bi ñooy ñu promettre ñu promouvoir kii bi parce que pour que nit ñi xam njariñu ceeb boobu ceeb boobu moo gën a baax ci suñu santé parce que amul suukar amul yooyu yëpp ah, donc vraiment chemin de fer moom ah. dëkk mun benn dëkk mënut a développé te chemin de fer bi teguñu ko donc vraiment ah, dëkk yi développé yëpp ci àddina bi dañu teg chemin de fer bu rentable donc vraiment ñi ci ñu ngi ci pour defaraat chemin de fair Sénégal yëpp defar mais directeur directeur yow yaa ngi wax sànq six cent quatre-vingts milliards mais maa ngi dégg ku mel ni Ousmane Sonko di wax mille trois cent milliards yoo xam ne moom ngeen def ci terre bi. xam nga Ousmane xam nga xam nga problème bi mooy quand tu n'es xam nga sénégalais li ma li ma li ma naqari ci sénégalais ku nekk rek day ngi wax ci lu neex xam nga les gens ils pensent que ñoo xam lépp man lépp te lu nekk dafa am ko ko wax. xam nga ne loolu ñuy wax amut. amul man amul wax naa ko wax naa ko ko eh, moom moom bind na leen assemblée man maa ko répondre mm-hmm. maa ko répondre woo naa ko débat woo naa ko lépp ni ko ñu indi ñu indi affaire yëpp teg indi marché bi yëpp te marché xam nga contrat Sénégal c'est public da ngay dem ci site ARMP ARMP point sn nga xool l'ensemble des marchés signés l'ensemble des contrats l'ensemble des contrats yi signé ñu ngi on est à six cent quatre-vingts milliards vraiment boo waxee ni mille milliards la da ngay nax sa bopp parce que problème bi mooy ñun même bu fekkee waxu waxuñu woon dëgg entreprise yi nga xam ne dañ contrat ñoom ñëpp ku nekk bu additionné xam nga mënu ma ñëw jox la benn marché signé ak yow contrat ah fay la six cent six cent ni mille la kon yow yow mi gagné marché bi sax di ma woo ni ma yow ah, attention y' a un problème yow yaa ngi ne six cent quatre-vingts nga ma fay alors que nit ñi mille milliards lañ ma fay kon entreprise yooyu sax dinañ kaas ni ah yéen jox leen ah comme ay ñaata. AFD ñun finance nañ ci cent vingt finance nañ ci à peu près cent quarante milliards ah ba BID financé nañ euh, euh, ci cent quatre vingt dix sept milliards BID ak kii nañ ci cent quatre vingt dix cent cent quatre vingt seize milliards AFD financé ci à peu près cent cent cent cent AFD financé ci à peu près cent trente milliards BAD finance milliards mais ñi ñu financé yow nan nga mën a defee projet bu nga xam ne c'est supérieur à li ñu la financé foo koy jëlee. ju par de logique rek quoi c'est-à-dire logique pour que sénégalais yi logique nan nga mën a jëlee benn projet bi nga xam ne da nga dajale ay ay nit te nga dajale ay ni leen financé den ma kii jox la un kii jox la deux kii jox la trois kii jox la quatre boo ko additionné muy cinq mm-hmm. nga def projet bu nga xam ne c'est ut lay jar foo jële xaalis boo ko financé est-ce que loolu yenoon na maanaa mm-hmm. non vraiment logique dama ko ramante terre à mm-hmm. et deuxièmement da nga def appel d'offre gis nga boo defee appel d'offre ah mënatoo tu ne peux plus parler de prix parce que boo defee appel d'offre tu as le meilleur prix ah prix sur le projet parce que boo defee appel da ngay choisir entreprise yëpp yu ñëw ñu ko mën def yi ko mën def après nga jël ci ki ci gën a tuuti prix xam nga loolu lañ def bi ñu defee appel d'offre y a 65 entreprises ñëw les meilleurs du monde 11 nationalité bi ñu ñëwee ñu tànn ci ñi mënoon def projet bi ñi mënoon def projet ñu tijji seen offre financière ki ci gën a tuuti offre moom lañ jël. donc on doit même pas c'est-à-dire quand tu es un parce que tu as le meilleur prix. kon li ñuy wax loolu lan lañ ci jublu. yàq rek amalgame intoxication déformation pour nous dévier de la pour yàq der xam nga problème bi mooy. Mhm. fekkee da nga wax loo xam du dëgg. Mhm. boo ko waxee fekk ku mer. koo xam ne xëy na régime bi gis gis ci boppam dafa mer di fu mu jaar da koy gëm day wax ni ah ñii ñoo tax ñii ñoo indi sama malheur. kon maanaam daal Ousmane Sonko li mu wax ci teer bi moom amul du dëgg. du dëgg li wax ci teer bi du dëgg. amalgame la intoxication déformation ah pour yàq xelu sénégalais yi ci président Macky Sall li muy liggéey. ci mm-hmm. yàq ko ci régime bi mais loolu du dëgg dañuy choisir beneen beneen beneen sujet mais sujet boobu moom du dëgg vraiment on a fait un appel d'offre dans les règles de l'art un appel parce que bu fekkee nii dafa ni Sénégal li mu ci def baaxul dañuy wax BID li ci def baaxul parce que bailleurs de fonds yi bu ñoo la ñoo la ñoo la jox seen xaalis dañuy ñëw xool li ngay def loo def ñu def la nga bind leen ñu def la rapport de non objection c'est-à-dire d'accord nañu bala ngaa avancé BAD ni d'accord nañu bala ñoo avancé BID ni d'accord nañu bala ñoo avancé eh, AFD ni d'accord nañu bala ñoo avancé Trésor français ni d'accord nañu bala ñoo ñun fii suñu euh, organisation passation de marché muy ARMP ak DSMP ni d'accord nañu bala ñëw xanaa ñoo ñëpp ñëpp ñëpp moo la leen dugal ci benn panier def la neex est-ce que mën nga ko BID xaalis bi mu am mën na cinq fois budget du Sénégal AFD xaalis bi mu am ak kii mën na cinq fois six fois kii Sénégal est-ce que ñooñu mën nañu lem seen loxo nañu lem seen loxo. mais kon opposition bi li ñuy wax ci terre bi. naan amul benn utilité li ñuy wax ci terre bi yëpp du dëgg. parce que quand même mënoo def projet bi nga xam ne dañ la financer plus de plus de cinq cent milliards de financement te joxewoo analyse de faisabilité c'est-à-dire nit ñi si xamuñu ni lii dina leen indil dinañ jot dinañ jotaat seen xaalis ñoom déjà. te ñun analyser nañu Dakar Dakar dafa xat boo jógee fii tey nii boo jógee fii maa ngi ñëw sori daal ni xam nga xat na. caa mhm. fi bu amoon ab autorail nga xam ni amul benn embouteillage damay ñëw fii directement ak xat-xataayu Dakar ay nit ñi fi nekk possibilité yëpp dakaar la nekk président ni mais il faut mu dindi possibilité yi nag yóbbu ko ci kaw pour pour pour exode rural bi mu yóbbu ko ci kaw gi. bu ko defee mu jël mu yow mu jël mu jël def lii euh, jam ñaayu ville relais rek la parce que dañuy ñëw relais ville relais après dañuy defaat yeneen pôle urbain yeneen pôle urbain ci dëkk bi ci àll bi bu ko defee mu am ay sur euh, les les les kii là def ci dëkk yu nekk département bu nekk ñu defa parc industriel bu ko defee mu am ay usine bu amee ay usine xam nga am nañ ci phase bi les les les cinq initiatives du plan am na industrialisation bu ko defee nit ñi mën a toog foofu liggéey li ñuy béy ñu mën ko transformer daal di liggéey loolu mooy indi développement nit ñi toog seen dëkk yi parce que li nga am dakaar yëpp di nga ko mën a am foofu ah ba di liggéey. ñàkk liggéey moo tax di ñëw fii léegi il faut ñu décongestionner Dakar pour décongestionner Dakar nag transport appui à la production la mënoo def benn production dem ci développement te amoo un système de transport fiable te train mooy un système de transport fiable parce que dafa am yoonu boppam loo def ci train rek ñàkk la colonisateur bi xamoon na ko de loolu tax bi mu lu mu njëkk def tubaab bi fi ñëwoon colonie lu mu njëkk def autorail la njëkk a autorail lu njëkk def. pour jëli produit yi Mali indi ko fi. pour jëli produit yi Saint-Louis indi ko fi loolu la njëkk def. mbokk yéen a ngi déglu uh-huh. dañuy saluer indépendance ba léegi c'est-à-dire pas indépendance bi ñu colonisé 1924. Mm-hmm. la la Séné la Sénégal ga ci def gaar ñëpp bu ñu rombee gaar yi ak ni mu rafete ak ni mu taaruwaay ah nit ñi dañuy naan c'est pas possible kenn mësu fi xalaat def gaar président Macky Sall bi mu ñëwee moo def 14 gaar donc. war def plus de 47 quartiers Dakar ba mu ko bi loolu dañ koy saluer depuis 1924 kenn benn gouvernement jaaru fi teg gaar d' accord mbokk yéen ngi déglu euh, Abdou Ndéné Sall mu nekk responsable politique APR ci euh, commune bu Tivaouane mu nekk directeur général société national du gestion du du terre euh, moom la ñu invité tey si émission pencum réew mi ci rajo réew mi FM léegi terre bi maanaam kañ lay pare nag commencé nag nit ñi di si dugg ak dugg ak wàcc. xam nga li may wax toujours mooy que. dañu signé woon dañu signé ay contrat xam boo signé contrat da ngay signé nii man lii laa koy defee maa ngi koy defee ci tel délai. Hmm. entreprise yi actuellement dañoo tardé le tardement boobu nag am na ay pénalités yu ñu leen war def moo moo gisoo ministre bi wax ko tey. Hmm. bi muy répondre euh, hmm. ambassadeur bi ah, wax na ko nee na ñun li ñu waxoon yëpp dañ ko wéer ci li nga xam ne moom la ñu signé woon le contractuel ah loo xam ne moom la ñuy signé ak entreprise yi bu ma signé ak yow ah. nii de dinaa ñëw fii quatre heures def sa émission bu ma tàddee rek man maa foti ah léegi li ñu signé woon normalement waroon na pare bu yàgg yi daal y a des retards nag ah? moom lañ doon wax nii y a des donc retard yooyu bu amee du Sénégal moo fautif entreprise yooyu moo fautif mais dinañ leen sanctionné def leen ay pénalités et tout ça mais vraiment président moom lu mu jiital mooy la sécurité et la te wax bu ñu demee ba def test yëpp ba mu am sûreté sécurité et conditions de fonctionnement ñu doogoo a fonctionner c'est ce qui est important actuellement nit ñi comme terre bi amul fi woon yàkkamti wuñ teer bi de nit ñi li ñu yàkkamti mooy mobilité sociale de part et d'autre mooy point yi pare euh, kii yi pare nu mu tudd euh, passerelle yi pare ñu mën a dem ak dikk donc ci loolu lañ nekk ñu ngi koy accélérer bu paree ba nga xam ne mën nañuy def test ak yëpp ñu commencé def test bu ñu defee test ba autorisation de mise en exploitation comme parce que terre comme avion la léegi mënoo tëb rek di ko dawal mënoo tëb rek di ko dawal il faut nga indi benn expert international bu ñëw defal la certification bu ñu defee certification bi rek dawal nit ñi yàkkamti wuñu teer bi li ñu yàkkamti mooy mobilité sociale bi ah mën a dem fii dem fee toujours dañu nekk on est en phase avec les impactés ak ñi nekk foofu di xool seen bëgg-bëgg pour ñu nekk ci parce que teer bi dañ ko mën a def dañ ko war a def te du kenn donc vraiment maa ngi ñaan aussi ñëpp ñu ñu dal ambassadeur bi dal xam ne ñun dañu signé woon ay contrat avec des entreprises entreprises yooyu la affaire amuñu affaire ak le bailleur moom moom France dañuy lebal rek li ñu lebal dañ koy fay donc comme lebal nañu ñun ñu ngi exécuter ne nañu wax seen entreprise ñu respecté li nga xam ne signé woon nañ ko au début loolu rek moo important. waaw ah, mais impacté yi est-ce que ñëpp euh, fay ngeen leen wala ñu ngi si waroon a euh, jox xaalis. xam nga autoroute à bi ba léegi am na ñu ñu fayagul autoroute à péage laa la wax de fii Ablaye Wade defoon ba léegi am na impacte yu ñu fayagul ñun au moins ci douze mille cinq cent impacté ah, treize les quatre vingt dix sept pour cent fay nañ leen douze mille cinq cent la ñu impacté woon nit quatre vingt dix sept pour cent yi fay nañ tuuti ñoo des te tuuti yooyu yenn ay problème de papier yenn saa yi xam bu nga bëgg a fay nit ci benn këram fekk kër bi am ay hérédité la ñu bari ñoo ko moom bu indi papier yi dafa compliqué et tout ça te loolu boo ci juumee rek di nga fay ñoo xam ne ñeneen ñoo ko waroon moom donc ay papiers yi ñoo des et tout ça yooyu yëpp ñu ngi ci dox mais xaalis bi moom mi ngi fi pour fay on n'a pas de problème pour fay. Ah. donc vraiment ci loolu la def ñu leen di masawu parce que kuy liggéey yaay yàq mënoo def omelette tojo ay nen ñu ngi leen di masawu xam ne ñun ay partenaires la ñu loolu yëpp pour def ko parce que le TER ce sera un TER populaire c'est un TER de de Sénégal Sénégal moo ko moom. luñ ko def pour améliorer mobilité urbaine bi dem ak bi booy dem banlieue li nga mën ngaa perdre te léegi avec TER donc vraiment loolu lu ñu war a saluer lu ñu war a saluer def TER bu mel nii avec ce que ça comme argent président bu am initiative bëgg dëkkam rek moo ko mën def vraiment parce que man je salue les initiatives et la grande ambition du président Macky Sall pour le Sénégal parce que vraiment lii président bu ko neexoon xaalis lii yëpp muy leb nii nii comme président yi fi doon def mais di financer rek la consommation nit ñi dañu bëgg ñu leen jox rek ñuy consommer mais on fait des projets pour changer durablement le Sénégal projet bu amul dëkk bu amul infrastructure parce que les contraintes économiques bu Sénégal lu tax Sénégal doxul quatre contraintes économique la am mooy énergie bu doyul ah énergie bu doyul te président bi mu ñëwee dañu doubler production énergétique bi ñu ngi ko jëlee cinq cent de mille cent mégas ah yokk village yi électrifié deuxièmement accès au financement président indi DER ñu indi trente milliards jox ko plus de cinquante six mille hommes et femmes porteur de projet ñu ciy liggéey beneen bi mooy infrastructure président bi mu ñëwee ba léegi li ñuy def ci infrastructure vraiment dañu accélérer boo gisee tension bi am ce qu'on a fait en infrastructure loo xam ne dañ ko waroon def sur sur vingt ans sur trente ans moom la président nag di def en huit ans riz yu yàgg yi benn pont lañu daan def par at ñun chaque at def quatre à cinq ponts ci tali chaque at dinañ def cent kilomètres de plus C'est pourquoi je di le, la, les réalisations du président, il n'y a pas assez de publicité et il n'y a pas assez d'informations sur les réalisations du président. Moi, je suis un expert routier. Hein? 100 km de plus moom la ñuy def ci tali par rapport ak Ablaye Wade bi ñuy wax mooy. mooy mooy mooy président Ablaye bi ñuy wax mooy champion ci infrastructure donc loo gis rek. loo gis rek président Macky Sall loo gis rek ci réalisation il la multiplié par quatre. moo tax mu ne koy wax président multiplicateur par quatre loo gis rek loo gis loo tudd secteur boo tudd fañ ko fekkoon ak fiñ ko yóbbu léegi multiplier nañ par quatre fañ ko fekkoon cinquante deux ans de de cinquante deux ans administ ñetti président yi fi jàll cinquante deux ans li ñu def ñun en en en en sept ans ah multiplier ko nañ par par quatre yéen yi multiplier par de énergie cinq cent méga mille milliards lali lali lali lali lali kii université yi huit mille lañ ko fekk ñu ngi ko yóbbu trente deux mille bi multiplié par quatre d' accord léegi euh, léegi ñu wax ci euh, question bu mujj bi euh, lu jëm ci yow polytechnicien nga oto yi nga xamante ni tey ay gros porteur lañ di chargé ba mu fees est ce que oto yooyu ak lan la ci ministère bi jël ndax jàpp ñu ne bu ñu chargé ba fees def surcharge mën na ñoo yàq tali beeg yu demee noonu yow lan ma si xaar. ñu def règlement xam nga dañuy am règlement 14 loo xam ni ñoo ko seq ak. Euh, dëkk yi nga xam ne ñoo nekk fii rek ñuy muy muy muy muy muy muy union économique monétaire ouest africaine ak ak ak CEDEAO nga xam ni euh, charge à l'essier yi dañ ko war a limiter pour bañ tali yi bañ a yàqu waaw moom la ñu am problème tuuti gi yenn saa yi toujours transporteurs yi di yëngal parce que bëggu ñuy respecter réglementation boobu tu as vu te moo tax ñu teg euh, xam nga am na kii ñu teg Afrique pesage mm-hmm. nga xam ne boo demee ci yoon yi léegi nga gis ay kii camions yi di taxaw pour peser wu pour ñu xool ba xam dépassé nga a dépassé woo pour nga fay wala ñu délesté la wàcce bagage parce que dafa am charge boo xam ne bu ëppee day teel a tali bi donc loolu la ñuy loolu la ñuy loolu la ñuy nekk di def actuellement commencé nañ ko et tout ça ci la ñuy nekk liggéey donc y a a le gabarit gabarit bi aussi dañ ko limité parce que gis nga temps yi oto yi am na benn oto boo xam dafa chargé woon ba kii mu mbëkk benn passerelle fii ci ci ci ci Kër Mbaye Fall mu daanu donc gabarit bi aussi dañ ko war a limiter et tout ça parce que loolu yëpp defar la parce que lu ñëpp bokk ñëpp ko war a sàmm même transporteur bi di dix dix bu nga di boo leen waxee ni dañuy charger parce que transport bi duñ ci génn parce que li ñuy fay dafa tuuti mais lim leen di yàqal moo ëpp parce que dina la yàqal oto bi parce que généralement ki moom oto bi du transporter da koy jox bi benn chauffeur bi nga xam ni dañuy def rek moom dañuy def def loolu tax moo indi problème mais même fi ñuy charger am na ay plateformes yu koy def yoo xam ne koy peser. parce que di gën a métti mooy yenn saa yi dañuy chargé ba pare ñëw ba ci yoon bi ñu pesé ne affaire bi ëpp ñu wàcce ñu wàcce bagage te loolu dafay métti ci ñoom moo tax léegi ci fi ñuy chargé dañuy def ay plateforme nga xam ne leen di pesé avant ñuy dugg ci tali bi donc vraiment loolu yëpp ministre bi ngi ciy liggéey euh, ci que bu def et puis nañu un garde à à Diamniadio bu ko defee camion yeeg yooyu yem Diamniadio et tout ça bu ñu defaree chemin de fer bi nag boobu temps nga xam ne lu diis lu diis a koy yoon bu ko defee lu diis chemin de fer bi yanu ko lu oyof camion yu ndaw yanu ko loolu dina gën a neexal ah. commerce bi dina gën a neexal dina gën a ñu def euh, ñuy wax compétitivité économique dañuy renforcer compétitivité économique ah. ñu ngi liggéey vraiment li Sénégal man je suis un expert sérieusement jànguma nekkuma ingénieur rek ma je suis un ingénieur je suis un financier je suis un parce que bi ma bi ma bi ma jógee polytechnique aussi dem naa CESAC ma ma def banque et finance ma banque et finance le MBF ah master en banque et finance bi nga xam ni eh, marché financier finance d'entreprise bi nga xam ni BCEAO bi ma xamee ni Afrique pare wuñu ay financier il a senti la nécessité de forme de grands financiers pour dugg dans le marché financier man foofu deuxième promotion boobu boobu laa yem pare ma def MBA MB MBA bu stratégie et toujours finance bu CESAC aussi donc vraiment euh, li ñu ma dénk mën naa ko sérieusement. léegi lan ngay tàggoo directeur. li may tàggoo mooy may gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan jàmm parce que toujours les besoins la pyramide des besoins motivants mooy boo passé des besoins physiologiques mooy ngay lekk ngay naan ah ngay dund beneen besoin mooy besoin de sécurité ah après besoin de reconnaissance de réalisation d'estime de soi léegi tant que benn besoin bi passé woo ko du dem ci beneen bi moo tax boo lekkee naan du tig après besoin de sécurité bu nit ñi amul sécurité yi si des développement sax kenn du ko wax am na dëkk yoo xam ne boo duggee boo duggee sa boo demee boo demee boutique ba xëy na danga nga naan bala maa si ñu rey ma donc Sénégal am na jàmm yàlla na fi jàmm yàgg ñun ñëpp nañ jàppandoo di dimbali parce que man damay damay yaakaar ne nguur gi boo nekkee ci nguur ñëpp dañu war a jàppale pour nga avancé parce que bu boobaa yow boo jógee ci nguur gi keneen bu ñëwee dina fekk état bi mu nekk ci position bi nga xam ne dina baax mais bu fekkee danga nekk ci nguur ñoom ñëpp ñuy dóor pour que pour que nguur gi du du dem wala dara loolu baaxul pour man vraiment boo bëggee si réew da ngay def tout bu amee après nga ni nag. lii la lii la programme bii la ñam man bu ma ñëwee naa def programme bu ko ëpp ah mais rek di amalgame di intoxication di di wax nit ñi loo xam ne amul loolu moom vraiment tant bàyyi wuñ ko defe naa dina métti trop trop trop trop. jërëjëf euh, Abdou Ndéné Sall directeur général société nationale de gestion euh, du terre mbokk yi moo nekkoon seen émission pencum réew mi ak Abdou Khadre Seck jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm.